Il euh, est بالعربية وأتم بالفرنسية حتى فهم الجميع تلقينا دعوة شريفة من فضيلة الخليفة وجئنا تشرفنا كثيرا لأنه أرسل إلينا أحد أبنائه ليأتينا على نؤتينا على الدعوة وجئنا لاستجابة جئنا كأبناء والدعاء والتوجيه والنصيحة من الأب والخليفة نشكر وتشرفنا كثير نشكر فضيلة الخليفة على دعوتنا وإن شاء الله أنا اليوم شيخ الأئمة في كوت ديفوار رئيس المجلس الأعلى lil aima wal masajid wa shu'un al islamiyya wa tahta riayat hadha al majlis wa al a'da adad al a'da a'da al aima عشرين ألف إمام والمساجد تقريبا ثمانية آلاف مسجد في جميع أنحاء البلد حتى يستفيد الجميع سأقف هنا بالعربية وأواصل <laughs> بالفرنسية Nous avons dit que l'éminence euh, Khalifa a demandé les nouvelles. Nous avons dit que nous sommes venus répondre à son aimable invitation. Il nous a fait l'honneur de d'envoyer un de ses enfants pour nous remettre une invitation en Côte d'Ivoire pour venir le saluer. Nous sommes venus comme des fils qui viennent à leur père, comme des élèves qui viennent à leur maître pour demander bénédiction et demander euh, orientation. Nous sommes euh, à la tête du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Dans le conseil des imams, dans le COSIM, nous avons environ imams et plus de 8 000 mosquées que le conseil supervise en Côte d'Ivoire. Notre organisation, le COSIM, est une, est sorte de fédération. Dans le COSIM, vous avez tous les tariqas. Vous avez toutes les écoles toutes les tendances islamiques se retrouvent pour coordonner les activités de l'islam. Après, chaque imam, quand il rentre dans sa mosquée, chacun est autonome. mi ngi dikk tey ginnaaw bi nga ko defalee sakk teraanga ju mag ju toll ni invité ko yebal sa doomi bopp mu dikk ba fi moom yóbbul ko invitation loolu rëy ci ñoom lool mu mel ni kon dañoo ñëw ñëwinu doom ju seet si seen waajur doon tamit ay dongo ak i taalibe yoo xam ne dañoo seet si seen kilifa ngir sàkku si ñaan ñoom nag nee nañu dañoo doon benn fédération boo xam ne lislaam gépp gi nekk ci Côte d'Ivoire dafa nosu ñoom ñu jiite ko ñoom ñi COSIP bi moom mii moo moo leen jiite waaye ñoom dafa mel ni dajale nañu loo xam ne ci ay imaam yoo xam ne bari nañu ba toll ci limu juróom-ñetti ñaar fukki junni ñaar fukki junni imam yoo xam ne biñ ko xoolee tamit nekk nañ ci lu tolloog juróom-ñetti junni ay jàkk ci biir réew ma nee nañ nag ay mazahib yëpp nag am na ci euh, dafa mel ni jullit ñi ñoo booloo nga xam ne kenn ku ci ne euh, tariqa joo boo mën a ne wala tamit mazahib boo boo mën a nekkit ñoom ñëpp dañoo dojale seen bopp nekk ci kilifteefu li nga xam ne moom mooy euh, COSIM waaye nee na ku ci nekk nag boo demee delloo ci sa jàkk yaa yor kilifteef gi am nga autonomie pour doxal sa liggéey lii daal lu nee na ñoom moo leen indi tey ji si hmm? waaw COSIM mooy conseil euh, maanaam majlis waaw ah. comme majlisu ah, ah, majlisul ala wala majlis boo xamante ne moo kawe di di lijjanti lépp lu jëm ci euh, jàkka yi imaam yi euh, defe naa noonu la waaw kay ah ak mbiri lislaam yëpp ci ci réewum Côte d'Ivoire waaw joxaat donc euh, nous sommes venus pour écouter l'éminence euh, le calife euh, mais nous demandons surtout ses prières parce que souvent quand on est placé dans une certaine position de responsabilité dans l'islam shayatin al-ins wal jinn ils se, ils contre toi. Ils se disent, si on arrive à avoir celui-là, on va avoir beaucoup de monde derrière lui. Nous sommes jeunes, euh, qui prient pour nous. Ça, c'est un. Qui prie pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le résumé de l'Afrique de l'Ouest. Tous les pays francophones, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest ont de fortes communautés en Côte d'Ivoire. si, la paix règne en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, en Guinée, au Burkina, au Ghana, tous ces pays bénéficient parce que tous ces pays ont des ressortissants qui travaillent en Côte d'Ivoire. Mais que Dieu nous protège s'il y a problème, et nous avons vu déjà des problèmes, ça va répercuter sur tous ces pays et tous les ressortissants de ces pays en Côte d'Ivoire. Mm. Que le calife prie beaucoup pour la Côte d'Ivoire, pour la paix, pour la concorde, pour qu'il n'y ait jamais de fitna en Côte d'Ivoire. nee na mi ngi saku sa ñaan loolu moo leen yëkkati euh, te ñaan boobu yittewoo nañ ko lool ndax nee na am na ay daraja ci wàllu responsabilité ci mas bu ñu la ko tegee rek nee mel ni seytaane day ngemb waat laxasaayu waat ak pexem yëpp ak noonu yëpp nag daal di ne kii nag nañu boole suñ doole ngir yàqal nee na loolu nag moo tax kon fi saasi dafay soxlawoo nga ñaanal leen su ko defee ñu mucc ci pexe yooyu ñuy sàkku itam nga ñaanal Côte d'Ivoire muy réew ma ndax nee na réewum Côte d'Ivoire dafa doon foo xamante ne dafa doon fu dajale euh, réew yu bëri ci Afrique yoo xam ne dafa mel nii ñoom ñëpp dañ faa dajaleendoo dañ faa dajeendoo mu doon seen wàcc wàccuwaay loolu nee na bàyyiwul Sénégal bàyyiwul Ghana bàyyiwul Sierra Leone bàyyiwul Niger bàyyiwul Mali ñun ñëpp dañoo dañoo doon ñoo xam ne ay mbooloo ak i ak ak ñu bëri ci seenum réew dañoo nekk foofu ci Côte d'Ivoire kon Côte d'Ivoire su amul jàmm dafa mel ni yeneen réew yi nekk ci Afrique te wër ko jàmm du leen yomb te noonu leen nee na am na lu luñ ci jot a gis jot koo dund moo tax mu bëgg nga ñaanal Côte d'Ivoire mu am jàmm te xam ne jàmm jooju ak dal googu day doon loo xam ne Afrique gépp a koy bokk ñëpp a koy jëriñoo. beaucoup parlé, mais je voulais expliquer à son éminence euh, notre joie d'être là et nos préoccupations. Maintenant, nous voulons l'écouter. neen daal euh, jàpp na ne sax wax na lu bari waaye waaye nee na li mu bëggoon rek mooy feeñal mbégteem moo xam ne amul fu mu yem ci ñëw yàlla dimbal yi mu leen dimbali ba ñëw jàkkaarloog yow ñii tey jii waaw nee nag kon li mu jot a wax dafa jàpp bari na nen da lay bàyyee da lay bàyyee kàddu gi kàddu gi gan ñu jóge ni ñu jóge ñi ñëwe fi ñëwe ni fi loolu non koy door am cette satisfaction se justifie par euh, l'acte que vous avez accompli en quittant votre pays avec la motivation qui vous anime pour lui c'est la première fois que ceci arrive moo tax mu am mbégte mu rëy c'est ce qui c'est ce qui explique la joie et la satisfaction très profonde qui nous nourrit dégg na ni mu waxee bu baax a baax il dit qu'il vous a très bien suivi il a bien écouté ce que vous avez dit loolu dafa mel ne ndamal l'islam rek la et ça ça ne fait que refléter ou manifester la victoire éclatante de l'islam moo tax mu am mbégte mu rëy te am dolli ko yaakaar ju rëy c'est ce qui fait qu'il est aujourd'hui fortement réjoui et il actuellement son espoir ne fait que se raffermir nes nas bi wax ne def nañu ko ci te kodduwaat loolu fa tabarakallahu euh, lu lu rëy lu am njëriñ ci la car il dit la façon dont l'islam est bien coordonné et bien administré en Côte d'Ivoire, ça, c'est un acquis considérable en faveur de l'islam. moo tax kon noonu kon noo ngi leen donc nuyu nuyu moo baax mi mu C'est ce qui fait qu'il vous euh, renouvelle ces salutations très distinguées ainsi qu'à toutes les autorités qui représentent des, des, des, des assemblées différentes donc il ne fait renouveler ses salutations à votre endroit. Il motive votre, votre, ici à Touba aujourd'hui. Il sait que c'est mu par une ambition de travailler pour la cause de l'islam. Euh, c'est ce qui explique la, la joie et la satisfaction qu'il ressent. loolu suñu xol sedd na bu baax si mm-hmm. taxawaay bi nga xam ne jóg Côte d'Ivoire bu ñëw ngir lislaam noonu noonu noonu lañ ci sant bu baax a baax a baax leen ci gërëm donc il il il il il vous il vous témoigne sa sa, sa satisfaction et euh, vous vous vous félicite pour l'action sublime que vous avez accomplie en faveur de l'islam ce déplacement que vous avez fait depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à ici dañuy dafa ñëw gën gën soññu ci ci lislaam mun gën a mën a jugaat bu baax baax a baax parce que liggéey lislaam c'est comme si vous étiez venu pour nous exhorter encore davantage afin que nous puissions redoubler d'efforts pour travailler pour la cause de l'islam ici kon moom dafa mel ñoom dañoo yëg Cheikh Ahmadou dañoo yëg a ñëw mu nekk ci ba ni mu wujjee boromam c'est comme si vous étiez très au fait de ce qui était la base ou les fondements du travail ou de la cause que défendait chez Amadou Bamba toute sa vie durant c'est pourquoi il a travaillé il a œuvré jusqu'à jusqu'à jusqu'à son retour à son Seigneur kon nag ñu xam ne fii ci jotaay bi wëllëgu lislaam mi nu seq donc vous êtes venu donc raffermir et consolider les liens fraternels islamiques qui nous unissent ñu fas yéene ci suñu kanam am euh, yitte bu baax a baax a baax euh, gën a gën a sàmm euh, suñu wëllëre bi dox suñu diggante mu wëllëg C'est pourquoi également, en ce qui le concerne, il est déterminé à aller dans le même sens pour raffermir et consolider les liens fraternels qui nous lient pour l'avenir en essayant de mieux raffermir ces relations. kon li mu li mu ëmb ci euh, xol bu sedd euh, euh, mbégte mu ko sax di seeral suñu Il dit également ce qu'il ressent comme satisfaction et comme euh, euh, euh, euh, témoignage de reconnaissance, il ne peut même pas l'exprimer euh, euh, lui-même. Il, ne fait que le témoigner de façon très sincère vis-à-vis de son Seigneur, afin qu'il l'agrée, cette action. mbégte mi mu am daal mën na ko wax ci suñu laaj waxtu bi ci ci yiw boo xam ne amel nañ leen ko eh, loolu mën na ko xajatu fi waaye loolu rek moo nekk moom rek lañu teg te moom lañ fiy bàyyi itam incha allah ñu fas yéene ko ànd il dit également qu'avec l'exiguïté du moment surtout avec la prière euh, il sait que nous sommes indigents à vous exprimer convenablement le sentiment qu'il ressent en termes de satisfaction. Mais euh, il ne fait donc que, que, que le réaffirmer, le, le, le, le renouveler, en sachant que c'est un sacerdoce qui est devant nous, Inch'Allah, afin que nous, ensemble, nous puissions relever ce défi de consolidation de nos relations fraternelles. yëg nañu euh, gàttanu gi ñu gàttanu foofa ak ci ca jóge jóge ko ci suñu bokki taal bi yëpp nekk noonu leen di gën a dénk euh, bokki taal bi yëpp nekk te xam ne demee rek la nii la ñu leen di jàppale Sénégal comme mooy seen ñaareelu réew. Côte d'Ivoire mooy seen ñaareelu réew ci Sénégal comme ñoom dañ fa nekk comme Sénégalais loolu la ñu jàpp bi ñu nekkee Côte d'Ivoire. ñu jàpp seen bopp ne ñu ngi Sénégal. te itam ñu yaru doon. yoo ne dañ fay yàq dañ yàq du a dégg ñu ngi gën a dégg. Euh, euh, vous témoigne également une profonde reconnaissance pour l'accueil et l'hospitalité que vous avez réservée à la communauté mouride en Côte d'Ivoire. Il est, il bien informé, il est bien au de tout ce que vous faites pour les, pour les mettre à l'aise, pour les accueillir, pour les, pour, pour, pour, pour les encadrer, qu'ils se sentent chez Et donc, il, il, il réaffirme également sa confiance vis-à-vis -vis de cette communauté qui, Inch'Allah, par la volonté de Dieu, ce seront toujours des gens qui resteront dans la conduite édictée par le vénéré cher. Ils ne se mêleront jamais à des pratiques qui vont dans le sens de la discorde ou bien de, <laughs> du dégât. jàngukaay boobu ñu fay ñu fay ñu fay eh, bëgg fa bëgg fa dundal eh, bëgg fa xam lislaam loolu loolu mooy firndeel li moo et le témoignage qu'il est en train de faire pour votre action d'hospitalité vis-à-vis de nos compatriotes les Sénégalais là-bas ou les ce qui justifie davantage cela c'est le projet de l'Institut Ayamoussoukro Euh, que, que, que, vous êtes prêts à, mener avec nous pour le bénéfice de la Oumma islamique, mais également qui sera d'un grand apport pour l'éducation euh, de, nos, de nos enfants en Côte d'Ivoire. Il, dit qu'il est, bien fait, et bien informé de, votre position et de, ce que vous avez fait comme action pour faciliter tout, tout, tout, tout, tout, tout ce, toute cette œuvre qui est en train d'être édifiée en Côte d'Ivoire. Donc il renouvelle ses remerciements les plus profonds. Ça, c'est un Coran qui a été écrit euh, par le deuxième calife général des Mourides, qui, qui, qui, qui s'appelait Cheikh Mohamed Al-Fadl, le fils de Cheikh Amadou Bamba. Il l'a écrit de sa propre main. Ah. <laughs> Cheikh Khadim Cheikh Amadou Bachir moo ko bind Cheikh Mamadou Bachir, le fils de Cheikh Amadou Baba. Il est le frère de Benel, Cheikh Mamadou Moutaka. C'est un, c'est un livre de géographie, histoire religieuse. des ouvrages de, de notre vénéré Cheikh concernant les sciences de l'islam islamique. Ça, c'est des cadeaux qui ne font que témoigner euh, de l'agrément et de la satisfaction très profonde de notre vénéré Khalid. c'est le, c'est le meilleur cadeau pour un imam. ñoom nag na ay cadeau yu ñu la indil nag xam ne xam naa ne la muy la lu rëy la mooy li tamit ay ay gros la ak lu ñoo avocat ñoom dañ ko fonk lool ñoo la ko indil jërëjëf sore ci moom sax ci sa jëmm ji Mbàkke sàkku daal nga bañ ko nga bañ leen a fàtte mukk ci say ñaan boo leen gisaatul <laughs> la Côte d'Ivoire aussi dans cette prière nga bañ a fàtte itam Côte d'Ivoire ci say ñaan Mbacké pour lu jëm ci wàllu euh, kër googu nga xamante ne jàngukaay la dencukaayu téere nous na ñoom jekk nañu ngir jàppale projet boobu ba mu sotti ak imam Saïd na moo tax imam bi la grande mosquée de Yamoussoukro moo tax imaamu Yamoussoukro mu indaale ko looloo tax mu ñëw waaw loolu rek a tax moom ñi ñi topp ci moom bare na waaye li tax imaamu Yamoussoukro moom nga xam ne foofee la ñu am barab boobu loolu tax mu indaale ko ok nee na mi ngi leen di gën incha allah son père a été le premier représentant de la communauté mouride en Côte d'Ivoire. <laughs> c'est important. Euh, en Côte d'Ivoire on voyait toujours les mourides de loin. nee na Côte d'Ivoire ñoom dañ daan gis mouride si rek ci sori nii rek. <laughs> mais à euh, na sa jëf nag bi mu ñëwee. mourides vont faire partir maintenant de toutes nos na dootuñu defati dara loo xam ne mouride yi dugguñu ci biir. c'est pourquoi l'imam Haroun Koné. nee na moo tax imam bi ñuy wax Harouna Koné. c'est lui que notre responsable à Treichville. nee na mooy seen jëwriñ gi nekk te Treichville ñoom comme ñoom comme conseil. Treichville où nee na Treichville foofu la kër sëñ Touba gi ne. Mhm. waaw euh, les deux symboles. waaw na loolu. la maison de euh, mhm. projet de l'institut que le calife va faire. Mhm. les deux premiers tuteurs. na ñaari les aussi pour. na ñaari mandarga yooyu nga xam ne mooy kër sëñ Touba gi nekk Treichville. ak barab bi nga xamante ne mooy jàngu boobu ñuy waajal. ak daara jooju. nee na ñaar yooyu mooy li nga xamante ne euh, moo tax mu seen jëwriñ yi ko mu indi leen fi ngir nga gis leen ñaanalaale leen ndax ñu am ndam ñoom tam ci li ñuy def et pour euh, donner un contenu pour rapprochement des mourides du reste de la communauté mm-hmm. nous allons demander au Khalif mm-hmm. de nous désigner mm-hmm. un des responsables de la branche de Côte d'Ivoire de désigner quelqu'un qui va être un de nos conseillers dans le COSI nee na tamit loolu ngir doon mu doon jëf. dafa gis ne dina soxlawoo. Euh, ñoom nga tànnal leen kenn koo xamante ne. ca ña nekk Côte d'Ivoire. ñoom dañuy xam ne kooku dañ koy dugal ci biir COSIM bi. mooy seen conseil boobu nga xam ne mooy lijjanti lislaam bi. léegi day am ku ca bokk koo xamante ne day wóor ne taxawaay yoonu murid dootul doonate ay wax. waaye day doon jëf. si waaw nee na boo leen teralee teranga ju rëy ci ñoom ju toll ni nangul leen loolu rek. <laughs> ça va aider au nee na dina leen jàppale ba doon benn bi. ak jaxasoo gi gën doon loo xam ne day doon jëf. voilà la demande la troisième demande. loolu mooy ñetteel li mu doon sàkk. première demande. <laughs> waaw nee na li mu doon sàkk lu jëkk. je répète. nee na mi ngi koy baamuwaat. pour prier mais mooy nga ñaanal leen. Mhm. ñaanal ñu. la deuxième demande. ñaareel bi. pour prier pour la. nga ñaanal Côte d'Ivoire. ñetteel bi nag. mooy nga tànnal leen jëwriñ joo xamante ne ñoom dañ koy dugal ci seen biir foofee lay dëkk mu nekk ci seen biir ñu di mu sa ndaw doon lu matale ngir ñoom lañ ci yéene mu mën a am <laughs> te mat na il dit que s'il peut tàjjee la demande après une réflexion très approfondie pour euh, répondre au mieux à vos attentes. Inch'Allah. Gracias.